bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñi déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxna wa asbax almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma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 ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër tabarakallahu noo ngi wax nu ñëpp wa kullu aamin wa antum bi xayr mboolem ñi fekke woon màggal gi daaw waxtu wi fekkoon leen fi ñu dëgmal yoor yoor bi màggal gaa ngoog dellu seeti na ñu bare bari di ci daje di fàttaliku ñu bari ñu fi daan jaar xalifa yi nga xam ne ñoo toogoon ginnaaw sëriñ bi nga daan def saa boo ñëwee ziar kenn am at nga ñëw fekkoo ko fa wax naa ko ci waxtaan yi sunu xarit ba sëñ aboo mbàkke bu isin bentali boo masaan màggal si dem gedde fekk ko mu toog tabarakallahu tey bu nu demee duñ ko fa fekk waaye mboolem ñu ko daan fekke te wóote ko ren yàlla yàlla yërëm ñépp ñi ko daan woo fekke te wóote ko te tukki yàlla na ñibbisi ci jàmm ñi ko daan fekke te wóote ko ndax tawat yàlla na yàlla saafara leen maa ngi woon démb ci thème bi ñu tuddee Ila Touba ci wàllu jikko ak ni ko sëriñ bi sampe bés naka tey bu ñu xëyee ñett la sëriñ bi defoon mooy ponki ponki màggal arkaanu taazimi <laughs> bu fekkee nu lañ koy waxee waaw Cheikh Ahmad al Badawi ponki màggal kon mooy jàng alxuraan jàng xasaayit berndeel gan ñi ñett ñooñu daal moom ci lañ war a yendu bis naka tey jàng alxuraan jàng xasaayit berndeel gan ñi dem ma yëkkati jotaay bi ci alqiyamul axlaaqiya ci ashurut al maanawiya ci biir al madina la fadila sëriñ baa ngi doon wax wahab lana makarim al axlaaqi maa taxaabubi bila shiqaaqi xam naa bu Moussa Gueye bu ndar nekkoon sama wet ba yëkkati ko <laughs> wala suñu Ablaye Ñang ndeysaan cay jamonoom yàlla ko yàlla yokku wér mu ne yàlla na nga nu may makaarimal axlaaq ndax jikku daa am euh, rasail ak fadail fadail yi mooy makaarimul axlaaq mu ne ko wajal saxiiranaa yuwaqirul kabir yàlla na nga def ndaw ñi ñu weg mag ñi waaw fi Musab ibnu Umayr ma ndaw ñi bari ndax ndaw yoreli wane lim yor da ko yomb te wan mag li nga yor du ormal mag wan mag ne ko yaa ko raw walla yaa ko man walla yaa ko gën a xam wala yaa ko ëpp ay diplôme loolu loolu du ormal mag kuy ormal mag danga koy jox cëru ne ko yaa mag ginnaaw moo la mag moo la gën lum la gëni li ngay defal yàlla daf koo defal lu ko ëpp bu dee tabaski li mag mi rend ci xar moo ëpp sa yos bu dee julli li mag mi julli moo ëpp li nga julli maanaam mag mi la ëpp tuyaaba waaye mag mi it na yëg ne gone gee ko gën a néewi bàkkaaram allahu moo tax mu ne wajal saxiirana yaxinnu li sa li wajal kabirana yaxinnu li saxiir al ummul xanuun ci waxinu arab mooy ganaar ganaar bu ceyli bu ko dara tiimee mu dégg bruit bi day wax doom yi daw si leen fu doom mën a nekk rek bu déggee waxu yaay ji rek son bi rek xam fi yaay ji nekk ñum ñëpp ñu daw ñëw mu bóof ci seen kaw te du tëdd ci seen kaw mu wàcc tànk yi wàcc laaf yi ñoom ñëpp ñu dugg ci biir sëriñ bi nee na dafa bëgg mag ñoo xam ne nun la ñuy uufe gone waaye ci gone yi la njëkki nag waaye tabarkàlla seet <laughs> wajal xuluubana ala tawaadudi tawad tawaadudi bila tanaasuin wala taxaasudi mu ne ko yàlla na nga def sunu xol yi xol bu ne sopp morom ja ñu soppante ci soppante almawadda waxoon na almahabba léegi na mu indi almawadda tawaddut mooy ni jigéen ju am jëkkër ju sérieux ni mu koy nobe <laughs> ngeen baal ma seetit jigéen ju am jëkkër ju sérieux ni mu koy nobe loolu mooy mawadda wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawadda mawadda nobante gi nekk ci sëy bu sérieux mu ne yàlla nañ mel noonu amin bila tanazuin yàlla bu ñu xëccoo wala taxaasudi yàlla bu ñu añaanante kenn ku nekk loo am yal na la ko sa moroom yéene waaye amin waay allahu akbar ay waji ndaw ñaan gu rëy wala taxaasumin yàlla bu nu xuloo wala tadaaburin wala tadaaburi yàlla buñ wanante ginnaaw wala tabaaxudi yàlla buñ soxorante wala tanaafur yàlla buñ dawante yàlla buñ seexloonte yàlla bu kenn seexlu morom ja allahu akbar mu ne ha mu ne xataa nasiira muslimiin ba ñun ñëpp ñu bu ñu nekk ay vrai jullit ah waaw waaw nee na yim doon lim nii buñ ko nekkee dañu mujj ñun ñëpp ñu nekk muslimiin ay vrai jullit nga ne ha mu ne xaashiin wa muminina muxlisina saalihin waaw tabarkalla xam naa ko dem yaayi Maodo daanu na waaw yàlla na ko yàlla yokk wér waaw xataa nasira muslimin ñun ñëpp ñu nangul yàlla góor ak jigéen xaashiin ragal ko toroxlu wa muminin ñu ñëpp ñu gëm ko muxlisiin luñ defati mooy tax waaye saalihin doxee ca baax ndax inal lasina amanu wa amilu saalihaati xam nga fa ñuy jëm ah muy ñaan ca biir muy ñaan ca biir sëriñ Sam Buso Abdurahman ba mu ne waaxirinaa yaa rabbana bil xidma lil muslimina abadan war rahma mu ne yàlla nag nu xiir ci liggéeyal liggéeyal Euh, yàlla nag nu xiir ci liggéeyal jullit yàlla nag nu xiir ci liggéeyal jullit abo ah waalay yàlla ku bu ci yàlla xiiree déggal tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidma bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati bu du nu gën waaw ah xidma waaw waaw liggéeyal nit ndax jënn jigéen daa liggéeyal ab xaj dugg aljana jënn jigéen dafa liggéeyal ab xaj dugg aljanna xaj ba daa mar mu jox ko mu naan mu ñibbi fi dee sunu borom ne ko aljanna mu ne ko lu xew mu ne ko xaj ba nga mayoon mu naan yërmande dañu ca amoon moom laa yërëmi nii yonent bi wax ko saaba yi saaba yi ku ne tëj sa gémmiñ ne ko mooy yéen xaj yonent bi ne waaw wa fi kulli saati kabadin ratb ajrun aw kama lépp lu yor xol bu tooy ba ci weñ wi ba ci weñ wi boo ko defalee boo ko xitmaalee sunu borom mën na laa may lii jigéen ja yeewoon Muusa ma ba mu dee ca tànkulal ba it dégg nga la ko def waaw sunu mbokk Hadj Mokhtar Cheikh ca rajo RTS léeg-léeg mu dégg ko mu mu saraaw ko saraaw yu rafet tabarkàlla yal na ko yàlla yokk <laughs> ak am solo xidma wa axirnaa yaa rabbana bil xidma lil muslimiina abadan lil muslimiina abadan musiñ bi abadan mu ne waaw ndax kiy xidmaal muslim bu yàlla taxee abadan bu yàlla taxut ñaar yoon la koy def ne kii ki yëgut ne maa ngi koy liggéeyal daal di bàyyi laaj ko xaadim sàmp kuy liggéeyal nit bu yàlla taxee abadan bu yàlla taxut du yàgg ndax ñaar yoon ngay def gis ci moom ay manqué manqué yoo xam ne mooy tax nga bàyyi bul bàyyi allahu akbar makaarimul axlaaq yàlla na ko yàlla fayal waaw sëriñ bi radiallahu anhu seetitit wa raxma mu ne ànd ak yërëm ndax ki ngay xidmaalit bu yërmande amut danay wax ne ngeen baal ma ci ci misaal mi waaye nun laa koy waxe boo amee jabar te yërëmoo ko doo ko dimbale mukk maanaam nit du dimbale kum yërëmut kuy ñee nit doo ko dimbale booy ñee Oustaz Ahmed Dame Ndiaye wala nga ñee Imaam Fadilu Tall wala nga ñee Oustaz Aline mbay mbaa Mbàkke Sylla mbaa Aline Sall kuy ñeexub sëriñ doo ko dimbale ak xool li mu am ak ah waay si bi am na di waay <laughs> ni ko penc mi defee rek boo amee montre ba rafet sax ñu la ah kii di moom ah danga ma koy jox waaw moom nag sëriñ bi nee na yàlla na nu yàlla xiir ci liggéeyalante ku ne liggéeyal sa morom li muslimina waaye abadan ñu saxal ko dakk nag war rahma ma ne kuy liggéeyal nit bu yàlla taxee doo baa gaaw a bàyyi waaw sëriñ ba da doon séddale ay mbubbu soxna ya mu jox leen ba noppi kenn mel ni nogay daal di fay jóge jël lam ko joxoon dóor ko ko sànni ko ko ne li nga joxe doyut sëriñ ba woo ko doon joxe mbubbu ya ne ko diw nee na doyalut dolli ko ba mu doyal mu jeex tàkk ginnaaw yàllaa tax waaye bu yàlla taxut da nga koy sone ne ko da cee jot topp ko ko nag lu matum at mbaa ñaari at tabaski jote wala korite doo ko xottil ndax lim ger doon bee mukk bu leen ko def <laughs> seetat makarimul axlaax waaw wa axrina bi xubbi kulli muslimin wa najjina min charri kulli mujrimin mu ne yàlla na nu xiir ci bëgg bépp jullit yàlla na nga nu xiir ci bëgg bépp jullit fu mën a bokk ku mën a doon nu mën a tudd yal na ñu musal ci say ayu ayu euh, criminel yi ayu kàccoor yi ayu bënd yi yàlla bu nu kenn agressé yàlla bu kenn tafa sunu bagaas <laughs> yàlla bu kenn jël sunu lenn wa najjinaa min sharri kulli mujrimin yàlla buñ tasee kenn kuy raas déem ci màggal gi ndax ñiy màggali ak ñiy raas déem bokkuñu waaw waaw inspecteur joxaane moo ko daan wax wa axrina bi xubbi bi xubbikum li wajhika wa axrihim bi xubbina fanasluka wa yàlla nag nu xéer ci nu bëgg leen ngir yow nga xeer leen nu bëgg nu nu mucc wala boog nu dog yoon wa <laughs> Cheikh Abdourahman eh, Sëñ Sam Abdourahman Sëñ Sam Bousso ndaw béy du am solo wa axrina bi xubbihim li wajhika wa axrihim bi xubbina fa nasluka ngeen baal ma bu wax ji jub bu fekkee jum naa ci wax ji ngeen jubbanti yàlla na nga nu xiir ci nu bëgg leen ñoom jullit yëpp ngir sa jëmm ji yàlla la yàlla nag nu wërsëgale nu bëgg jullit yëpp mu ne amin mu ne waaye yàlla na nga yàlla na nga leen ñoom tam nu bëgg nu suñ leen bëggee ñu bëgg fa nasluka ñu dog yoon wa suluk maanaam allahu akbar sunu bëggee jullit yëpp jullit yëpp bëgg nu dog nan yoon wa sunu bañantee nag yàlla téere wallaay ndeysaan ci tit tit tit al madina al fadila sëriñ ci sart yi makaarimul axlaax te mooy jikko ya euh, mu dem ca biir téere ba di indi lu am soloti mooy ni mu ñu musale ci walla bokk ni mu ñu wërsëgale ci jikko yu baax musal ñu ci jikko yu baaxut yi naafiq ak wax lu dul dëgg noonoonte woote loo nekkut po yu bari yi kart ak yooteeg lu ñu demee mu ne wa najjina bijaa'ihi min daawa wal fi anna kaziban wa lahwa mu ne yàlla nag nu musal ci daraja yonent ba ci woote leen loo nekkul waaw woote loo nekkul <laughs> waaw woote loo sëriñ sëriñ lu waaw wala baax baax lu wala yiw yiw lu mu ne yàlla nañ mu ci loolu wal tag fi wal tag fi anna kaziban wala waa yàlla nag nu fegal wax lu dul dëgg yàlla buñ bokk ci ñi wax lu dul dëgg wala waa lëxw yàlla bu ñu bokk ci ñiy def lëxw mu dem ci biir ba ne wal takfina al hawa wa ma laa yaani wa bika daban axni naa maa mu yaa mux nii mu ne yàlla nag nu fegal al hawa bànneex yo yu baaxu yi nga xam ne laa yaani amul benn njëriñ amin wa bika daban axni naa na nga ñu yàlla ñu doy yàlla na nga ñu def ñu doy loola yaa mux nii yow mii yow mii jox nit lu ko doy wal fi anhu kayda kulli zi i'tidaa loolu daggitu bayit la chatr euh, tabarkàlla ca xasidatu matlabil fawzayni waaw bokk na ci yooyu mu doon jàngale ca pénc ma nga xam ne jikko yu baax laak yu ni demee mu dem ba ci biir xasiida ga mu naan rajal anhu wala tuwaaxisna bi suuil adabi wa bi tajarrui wa kuthri laibi fa innana wa in tajarrana fala narju siwaaka kun lana tafaddula wala tuwaaqisna bi kasrati lfudul fi zahirin wa batinin wa bil xuful xasidatu matlabul fawzayni yàlla boo jàppee ñaawi teggin maanaam ku ci juum ci ñun ba ñàkke teggin ku mu wërta ñàkke teggin baal ko ku ci juum ba yëkkati kàddu gu mu wërta yëkkati jëme ci nit baal ko fa mu bari mii ci pénc mi yàlla na nga nu ko baal pénc mi pa mi bari na waaye yàlla na nga ko nu ko baal mu ne nun même suñu jalgatee def la dul noonu yow dong lan yaakaar amunu kun yaakaar ku dul yow kun lana tafaddula bu ñu jàppee caaxaan yu bari ci saayir ak baatin bu ñu jàppee càggante mbokk yi luy ñu daan wax ci ñaari ayi bés yi mooy xalaatu sëriñ bi ci almadina alfadila ba ñële doon xalaat moom mu samp ko mi ngi nii di Tuuba nu war cee yendu tey nun ñëpp mbaa nu bari ci ñun nga xam ne loolu mu doon def du xalaatu filsafa rek kese-kese waaye lu mu brëdd la fondement ko def plan bi teg ko dugal ci nit ña ñu bari di ko dund wala ñëpp yooyu ngir ñàkk a xóotal ci wàllu tawil wala ñàkk a xóotal ba kuy déglu mu gudd ci moom te yàgg moo tax lu jëm ci ulama falasafa yaag ulama juxraafiya ak wàllu économie rek ñoom seen yooyu jotuñ caa dugg waaw ñu mel ni ñoom Cheikh Gueye bi nga xam ne moo bind téere bu ñuy tuddee Touba asimatul muridina Touba la capitale des mouridisme wala des murid bopp boo ca demee ci téer booba yooyu ma doon wax moom gën na caa yaatu su ko defee yooyu mooy lim doon àndeeg yéen ren laa Tuuba tabarakallahu eh, indi woon tomb yooyu nga xam ne ñoom laa joxoñ ci biir mbind mi waaw eh, yooyu nga xam ne moo ci nekk yàlla nañ ko dund ñun ñëpp yàlla mën na ko subhaanahu wa taala kon almadina alfadila dimension yu wuute la am ci wàllu filosofi ci wàllu dundal réew ci wàllu koom-koom yu wuute wuute wuute euh, exemple bi ñu ci doon joxe ci Tuuba doy na ci sëkk exemple wala doy na ci sëkk misaal euh, yi nga xam ne moom la gaa ñi doon def démb nga xam ne ci xayaal lay tege léeg-léeg wala xelmate mooy ay gént lislaam moom yi muy def bil xaqi la koy def te day wér ñépp tabarkalla huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina ku mën dañ laa jàppale jàmbar amul loolu la wala fi daan wax yooyu kon tax na ba sunu wajur wa sëriñ saalihu radiallahu anhu tërala loolu ñu bés bii nga xam ni ci la ñuy yendu walla bu guddee ci la ñuy nekk te daayira bii tudd rawdu rayaahiin di ko woote nga xam ne saa bu nu ñëwee ñu jox ñu benn document ci document yi waaw sëriñ euh, albadawi a cheikh albadawi dinu ca jiite nu koy ànd ak moom law ca liggéey ba am solo nañ koy taxawee ren sunu temu màggal ga war a nekk beneen thème bu am solo mooy ndaw ñi ndaw ñi ak seeni responsabilité ci gisunu sëriñ bi ndaw ñi ashabab ak seeni responsabilité ci euh, gisunu sëriñ bi loolu tabaarakallahu lu ama am solo la lu ama am solo la ndaw ñi ak seeni responsabilité ci gisunu sëriñ bi moom lañu war a waxtaanee incha allahu ren sëriñ Cheikh bu kebe bokk ci groupe bi nga xam ne ñoo doon préparé waxtaan wi ma doon waxtaanee war koo def su ko defee yoor yoor baa ngi nii ci kanam tuuti ku nekk tuuba ak ku fa nekkut ñépp yëg ne yoor yooru jàng alxuraan la jàng alxuraan waaye dox ca nag di ko jàng ba faw waaw suñu Adama Seck yoor yooru jàng xasaayit la déggal xasiida yi rek message yi ci nekk yaa mam solo la waaye ñetteel ba mooy berndeel gan ñi ndax Tuubaa bu nit ñi ñëwee duñu wax ne ña ngay dali otel sàngam di fay nàngam nangam déedéet kenn ku ne kër ga nga dal la fay ñëw ci ay berndeel day des léeg-léeg nit ñëw nañu ne añ ba diw nee na añ baa ngi nii bu ko taajee rek ndaw ku ndaay ci ci gémmiñ gi ni ëw ceeb yi wër ko tabarkàlla yàpp yi wër ko boisson yi wër ko na ma ndaw ku ndaay yi baal ko dem ñu ngi naan ah tee ñoo dem <laughs> tubaarkàlla yal na yàlla yokk jàmm yal na yàlla yokk jàmm ñaanam googu mu ne ijal rujuci qawmi saadatana wal tag fi naa yow ma jëm il niiraana nun ñëpp nu ànd ne amin nun na jeex ci bismillahi rahmaani rahim jeex ci alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen